asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar dara nag jàmm ci beneen vidéo euh, fan yële jàll xam nga ni ñu ngi doon waxtaanee naka ngay def ba am carte Tigo virtuelle bi expliqué woon nañ carte virtuelle bi ak euh, bi euh, ak ñaata lay jar naka nga koy amee. léegi tey nag dañoo bëgg dikk ci benn vidéo boo xam ni su fekkee am nga carte bi comme déjà am naa carte bi nii su bëggee jënd ci internet naka laay jëndee ak naka laa koy enregistré ci Google euh, Play xam nga il faut ko ci Google Play ba nga xam ni bon dina la noppal ba fépp foo gisee luy jaay rek boo ko cli boo cliqué ci kaw mu dirigé la automatiquement ci fi nga ko enregistré woon ci euh, Google Play bi donc euh, pour loolu ñu ngi lay ñaan nag avant tout balaa ñuy tàmbale su fekkee bokkagoo ci chaîne bi nga bokk ci chaîne bi pour bépp vidéo bu ñu defati rek nga mën ci jot incha allah. ngeen bañ a fàtte like yeeg euh, commenter yeeg wax seen xalaat ci seen bi donc da ngay ñëw Play Store pour nga enregistrer carte bi ci laa nekk boo dikkee Play Store euh, xar kanam bi ni lay mel su melee nii nga dikk fii nii ci euh, logo bi boo dikkee sa logo bi nga ñëw ci paiement boo dikkee paiement nga ñëw ci mode de paiement ji nii encore boo dikkee mode de paiement nag mu génnee la lu am solo instant bi ni enregistré goo dara xam nga ni léegi lire la ci kaw ajouter un mode de paiement euh, pour euh, effectuer vos achats vos prochains euh, achats rapidement et en toute simplicité simplicité ok léegi nooy def da ngay dikk fii nii ajouter un mode de paiement léegi fi ngay dikk boo dikkee foofu nga cliquer ci kawam boo cliquer ci kawam lii la lay génneel lii li mu la génneel nag foog naa gis nga ko bu baax. alors xëcc ba mu jege voilà ajouter une carte de crédit ou de débité ou de débit donc euh, fii nii fi ngay euh, def kii bi def numéro carte bi voilà <coughs> léegi boo dugalee numéro carte bi nii comme sa waaw comme sama numéro carte la moo tax ma euh, réduire ko am ay chiffres yu ma ci supprimer boo dugalee boo dugalee numéro carte bi léegi xaaral ma la. Euh, carte bi fii nii lii euh, dinaa woon fi ñu koy dugal CVV ji ak euh, lii date bi nii date expiration bi expiré lay def fin deux mille vingt deux mille vingt trois fin deux mille vingt trois kon douze mois deux mille vingt trois donc date bi date bi fi nga koy dugal. boo dugalee date bi fii euh, code bi nga dugal ko fii code carte bi nga dugal ko fii date bi code carte bi léegi lii mooy ni mooy numéro carte euh, kii bi mooy numéro de la carte bi voilà boo mooy numéro carte bi quoi mooy numéro carte bi rek euh, xam nga nag di dina ëpp lii vingt chiffres la war a nekk yaakaar na waaye man maa ko def nii donc soo ko xoolee ci sa carte carte bi bon numéro bii bii bi nekk nii 4 4 16 chiffres de doon waaw voilà bii moom nga recopier fii nii moom nga recopier fii boo ko recopier fii ba pare nga def euh, date bi def euh, code bi léegi nga def sa tour def euh, réew mi def réew mi nga nekk def sa adresse alhamdulilah baal leen ma ne damaa xaw a sañ nag quoi nga def code euh, postal nga defee code postal def euh, ville bi voilà léegi boo defee nii ba pare xaar moon la léegi ma enregistré ko dëggantaan comme léegi boo defee information yi ba mu mat léegi nga enregistré boo mu defal la lii léegi mu lii mu la defal boo xam nga validé goo ko ci Google euh, ci Google Play eh, da ngay kii da wàññeeku fii yëpp boo wàññeekoo fii yëpp nga ñëw ci ci sa navigateur internet nga dikk ci navigateur euh, boo am. ci kaw la ni ma ko bindee nii ci kaw la nii la quoi ni ma ko bindee nii ci kaw noonu la léegi nga def euh, recherche boo defee recherche nga xaar ko tuuti. boo duggee ci Google Play bi euh, pay google point com da ngay digg ci paiement bi bu dikkee ci paiement bi boo cliquer li la lay génneel bu la génnee léegi nga ñëw ci ajouter un mode de paiement su ko defee fii bu ko defee boo dugalee information yi yëpp dugal nga euh, numéro carte bi dugal nga date bi muy jeex dugal nga code bi boo ko defee information yi nga dugaloon play store yëpp mi ngi nii léegi nga wàcc ba fii nga def enregistré boo defee enregistré enregistré bi fii ngay bës léegi soo bësee enregistré nii lay mel day dikki nekkati fii voilà fii lay nekk gis nga léegi sa carte baa ngi nii bu la neexee nga supprimer ko bu la neexee nga modifier ko léegi pour nga xam ba xam baax na wala baaxul da ngay départ nga dikk play store boo dikkaatee Play Store nga jaaraat fi nga jaaroon pour da ngay vérifier si rek nga xool mode de paiement bi voilà nga ñëw fii léegi gis nga lu rouge li nga fi bàyyi woon nii dootoo ko fekk saa boo gisee mu def nii rek léegi eh, sa carte bi validé nañ ko mën nga tàmbali def say achat par exemple gis nga film bi day jaay ñu ci kaw bi boo bësee bu fekkee sa carte bi am na dara gisoo treize euh, euro lañ koy jaayee treize virgule quinze euro euh, su fekkee carte bi am na xaalis da ngay def fi acheter boo defee acheter fii di da koy traité traitement la nekk nii. léegi da nga koy bàyyi mu recherché bu recherché lii da lay génneel parce que amuloo fi xaalis moo tax gisoo. échec du paiement carte bi moomul xaalis mais bu amul xaalis da ngay gis mu def benn car ci kaw nii wan la ni la euh, li nga doon fay dem na mais instant bi comme amuloo xaalis nag moom nii rek la mën a demee waaye daal jàppal nii lañ koy defee quoi boo duggee Google Play boo ko enregistré comme ni nga ko war a enregistré affaire bi day validé wu léegi dootoo fa am lu rouge la nekkoon ci Play Store boo defee affaire bi a nga mën di jënd fu la neexee. loolu ma nekkoon vidéo bi dina jaajëfal asalaamaaleykum